ibnatu jaxshin mm. mooy Seynabu bintu jaxshin moom tamit mm. euh, baada joomi bàjjanaana baada seydin gannaaw seydu mm. maa lam tana loo xam ne amul ko nisaaw jigéen ñi ndax moom ñu ngi ko takkalee ci asamaan moom la moom jëkkër ja moo doon seydu waaye ñoom ñaar mosu ñoo ànd ndax kii sërifatu la askan wi mbokk dafa for kuréy siyatu la kële boobu ak toxandiyam la saa yoo xamee ne ñëw na di ko classé bu baax man daal sama digganteeg daal Seydou bu neexul dara dara dara Seydou bu fi mu ñëw sama digganteeg Seydou mu ne ko rek ma kii mu jigéen ko supporté mu xëy rek fase ko mm-hmm. fekk yàlla wax na yonent bi nag yëgal ko ne ko ah, kii ñaar ñi dencante ñu ay jëkkër ak jabar bu ñu fas rek bu ñuy fasantee rek ba jàpp yàgg rek danaa la ko may te yonentu nag ndeysaan loolu dafa ko xawoon dafa lu taxoon mu xawtee loolu bëggutoon mu am dafay ragal ñu bari demee ci moom safara ndax loolu bu xamee rek ñu bëri nañu wax lu ñu wax loo war a war a wax loolu dem ba dugaleen safara te yéene wut kenn dem safara ndeysaanam nag ci lañ nekk ci lañ nekk ci lañ nekk ba mu xëy fase ko dam mm-hmm. ko fasee rek mu jàpp yedd ba jeexal rek mm-hmm. léegi <laughs> mu jël jàpp yedd rek ba mu paree rek mu takk ko mm-hmm. ñu jibril la ñëw sax ne quoi ah, sa ndëkk maa lay ndokkeel ci takk gi may nañ la Zeynabu bintu Jahsin si juróom-ñaari la asamaan ci takk galaa laa bàyyeekoo léegi léegi nag yonent bi commencé xaw am lu am am ci lu ko naqari lool yàlla ne ko bu ragal nit ñu ragal ma rek wa taxsha naas wallahu ahaqu an léegi nag euh, nit ñi ga remplacé yi wala yonantu bi kii naan ku ne yonantu la xamuloo looy wax mi ngi nii takk na doom jabari doomam fekk moom booba moo téyewoon Seydou ci loxo mbooleem piñ ci màkk yi ak fu ne mu jaar faak ñoom kii sama doom ta doomoon naa ko ndax arab dañaan def noonu su ma deexee suñu waree doon war na maa doon moom bu deexee war naa koo doon yàlla nag bëgg a dàq ne mu jiile du doom waaye sa doom dëgg mooy ki nga jur ci sa ndigg léegi nag moo tax mu jël doomi jabar ji jabaru doomi jiitleem may ko ko maanaam waaw moo tax ba léegi sariat islamiya sa doomi jiitle bu takkee dee wala mu fase yow mën nga koo takk yow bàyyi jiitle ji ku ko def nag léegi nit ñi génn ci yow waaye sa doom ji nga jur ci sa ndigg bu façon dee wala mu fase yow léegi nag euh, sëy tamit muñ ndax moom tamit bu newutoon keneen mën naa yàqule mm. euh, bu ñëwoon tey ñu ne ko euh, yonantoo denc sa soxna mm. ci jamono ji ñu ne sëriñ bee dañ ci jabari taalibe bi gannaaw ba mu fase ñàkk taalibe xaj na ci waaye moom moom muñ ko muñ ko rafet rafet lu ko lool keroog sax ba muy yóbbu xibaar bi moom la yonent bi yónni woon moo demoon waxi ko xibaar bi hmm. ba mu demee mu ne soxnaa yonent bi kenn a la ko ko waxee rek wane gannaaw hmm. ba tey gisut ko hmm. léegi nag moom tamit yàlla teralee ko teraanga gi doy nii saxaaba yi dañuy bëri bëri moom kenn rek la alquran tudd wala ma qadara zaydun minha wataran kenn du ko fàtte abubakar ak Omar ak Ousmane li ñuy baax baax seen tur amu ci alquran hmm. moo tax mu ne xoqida takkeef na ko fi samaay ci asamaan lil badri ñeel weer wi taaxaaka yonent bi yàlla woo xéemal mafxaran puukare xawat bu làq na ko sumaaw asamaan ah sëy buñ takkee ci asamaan kay asamaan dana ci amee puukare li salaatin ñeel na ñett min baax di xam si na gannaaw juróom fukk xaaman ci xat kaana la nekk min xattu ko ci moom li xaaw ak daje ilallaahi jëm si àlla moom nag ndeysaanam juróom fukki xat la dund ak ñett wuy ji boromam dem aljana daaka xaam at moom buñ la ko laajee xaama naw mooy atam juróom fukk ak juróom mbenn naw la xaama nawin euh, kii day yàq rek wa kazalika naka noonu bintu xaaris denc na soxna suñu tuddee juwayritu bintu xaaris xat xabaaha may na ko bi fiddaha si ngatam nga wa utliqa boyaleef na xurabaawu jegeñaale ya moom ci xare la ko yonantu bi jàppee bokk ca jaam ya bokkoon ci ñëw di ñaan intervention euh, dégg nga yonantu bi ne ko ndax du ma la defal lu gën loola mu ne ko lan la mu ne ko ma def la ngay soxna léegi nag bi mu ko defee muy soxna la mu waroon a joxe pour nekk gor loolu mooy canam nga léegi nag gaa yëpp ñu jàppoon seen i jaam ne ah yonantu bi takk na juwéy réetu yonantu bi takk na ko léegi ñu ne kon ñi ay mbokkam lañ jege ñaari lañ ñun ti mënu mënutuñoo téye goral yonantu bi kenn ku nekk goreel jaam bi bi nga yore woon ci sa loxo dégg nga de jigéen gu bëri barke la ndax loolu moo ko may nitam ña su ma maata topp génn àdduna wala umru dund ba sabuna juróom ñaar fukk la xaman ci xat wa kaana nekk na laxa ñeel ko sawaawa ak sax fil jinaani ci aljana juróom ñaar fukki at la dund zaaka moo moomale at at mi mu génn àdduna xaman na win mooy atam cinquante six ci gàddaay ga bi tamsiin ki junj xat ataaxaa la ko dikkal xadaaw dogal mi ne lay bàyyi ko ci yàlla wa kaza naka noonu ramlatun moo ci tegu ramlatu bintu abi sufyaan a texee na bii ci yonantu bi ndax yonantoo ko denc iz kaana ba nekkee shaqaawu ak texeat bi li li ubaydillaay ñeel ubaydillaay tibaax lañ ko tuddee ci balaaxa maanaam yonantu bi am maanaam ramlatu amee na texe ci yonantu bi ni ko yonantu bi denc waaye ubaydillaay amee na ak texeat bi tamit ci teqalikoo gim teqalikoo kii ramlatu li ko waraloon yonentu ku baax la kenn mënu compte ramlatu dafa tuub te baayam bëggul yonentu mi abi sufyaan mbokkam yëpp bàyyi ko mu yonentu bi ñor ko ba tax mu gàddaay bàyyi fa kër baayam li baayam nekk nekk notable ci màkka ya mbokk ci notable ya mu dem gàddaay dugg ci géej gi ci gaal yi ba dem ba dem Éthiopie nekk fa li lay xamal tamit ne mujj bu rafet rek am solo Abdoulaye mii bëgg yàlla ba tax moom tamit mu gàddaay ñoom ñaar ñu ànd dëkk ba neex Éthiopie dëkk bu bari nasaraan la yàlla dogal dëkk ba neex kii ya bëree bëri ba mujj moom tamit mu soppeeku ab nasaraan mu soppeeku ab nasaraan bi mu soppeekoo nasaraan nag ndeysaanam dégg nga ah, xam nga kon tubbi na seen diggante xaraam na mm-hmm. eh, seen diggante xaraam na mënatuñoo dencanteeti mm-hmm. yonent bi yëg ne ramlatu mii tabaarakallaahu ni ma safooyee mm-hmm. ak li mu bàyyi ay mbokkam tama tax fu mu ne nii kam wéeroon gannaawam ba mu fàtte taxoon mu fàtte baayam ak yaayam kooka wan na ko gannaaw kon nag li ma koy njukkalee rek man tamit mooy ma takk ko sànni ko buum yonent bi yónnee ca buuru Najaasi ba moo ko joxeel can ga defal ko lépp bi can gi ñëwee dafa kontaan maye ko mu ne ko déedéet dañ koy dañ koy kii dafa maye sax ba léegi kenn jëlu ko moo tax mu ne wala mi ngeen alxaq da takk ba xaalit xii la waxeef na aw Usmaan wala Usmaan wa sax du ku texe ahluhoo nga ñoom ña soo daaw da ngay nekk ñu texe ku texe foo ko fekk ñooñu lañu texe ba may na ko an najaasi yu najaasi yu waxanu ci moom moo mayal yonent bi sadaqan can nga waaye ba can nga ñëwee faraqat fu teqale na ko is jaaha ba ko dikkalee busra woy bëggee ne ko yonent lay rek mu jël can nga yëpp may ko jaami najaasi yu yaag yooyu waaye ñoom ñeneen ñi ñoo ngi ko nag suñu kilifa najaasi yu dafa ne woon buñ ci jël dara nañ la ko delloowaat mu ne moom yonent bi daal sànni ko buum rek doy na ko teraanga ci àdduna umruha tundam ba fil masuulu ci luñ siiwe la ah mahruha canam ga taa un ñeenti téeméer la min dinaa niir ci dinaar si xat màngeef na ko nax waa fa wàllam fa niiram fan xaat nangu naa xomatullaha ñeel na ko xal yaawu kawe moom ñeenti téeméeri dinaar la ko cane yonent bi soxnaa mi ñeenti téeméer la leen cane ba mooy ki nga xam ne moom la la wax sànq nga xam ne ngoreelam nga mooy canam nga ak kii dégg nga xumruhaa dundam ba fil masuuru ci luñ siiwee maddun la mooy ñeent fukki xat ak ñeent la dund dégg nga walakin li fi nekk mudda tàllaleef na fii ci moom asaaru ay jeexital wala an baawu ak i solo bëri na tamit ay xaddis yoo xam ne solo na ko euh, ak liggéey bu rëy bu mu fi liggéey ci diir boobu ci lim fi li nga xam ne bàyyi na ko fi dafa def jinaas wastafa tànn na al mustafa kuñ tànn ka safiya iskaana ba nekkee laxaa ñeel ko ànd dixiyata fa dixitul kalabi yu dexiraawu ak cir maanaam dixi moom tamit ci xare lañ ko jàpp waaye dafa nekkoon ci cirëb dixitul kalab yi euh, ci la ko yonantu bi jël nag goreel ko def ko tamit maanaam muy ab soxnaam muy safiya aw la ma ciitalee na ko tamra tàndarma wa sawiqaak ruuy yaa ci moom fii xafoolim ci njëgg wala xet ko goreel ga mi naa ci mooy canam nga mooy mayam nga moom ci yoon rek lañ ko ci tukki mi eh, ci lañ ko ciitalee ciit ga taxut koo neex ruuy rek lañ naan ak tàndarma ngi tasaare ko nit lekk mu nekk ciitam nga xafool dégg nga su ma maasa topp génn àdduna wal umru dund ba loo teg makkun la mooy juróom benn fukki at wa fi taybati ci tayba dégg nga euh, min ha tukkeekoo na ci moom sawaaw ak sax la dal yi fa baqiya ñu ngi ko suul ca baqiya ci sëgi madinatu munawara ya wa atarha dikkal na ko min baxdi xamsiina gannaaw juróom fukk xaman ci xat lu ko dikkal rahmatun yërmande yàlla su ma rëfatum topp ñëwenti wastifaaw ak tànn ñett yëpp dikkal na ko gannaaw bi mu amee juróom fukki xat ci dundam dégg nga de Euh, gannaaw bi nga gannaaw juróom fukki at te gàddaay ga tombeeg juróom benn fukki at ci dundam su ma may mun topp may mun a moom nag wa fii sarafi ci place bi ñu tuddee saraf sorewul a munawara tuuti xad waqa la tabbi xaqalu takk ga wa tawaa ak génn àdduna ga wal binaa wa xaraf ga moom ñett yëpp place boobu la ko fekk muy saraf saraf la ko yonent bi takkee fa lañ ko ko jébbalee fa la tamit génnee àdduna foofa tamit lañ ko kii dégg nga su ma maata topp génn àdduna wal umru dund ba min haa samaanuuna juróom-ñetti fukki at la soxnaa yonent bi moo ci gën a gudd fan moo fi mujj tamit wa fiihaa ci moom nag eh, nekk na ci moom intihaaw ak daykal lil ummahaati ñeel yaay yi ci moom la yaay yi jeexee léegi xanaa taara ya lay wax rek ñaari bayti yi xaama ihdaahatan benn min baax di xam si ne gannaaw juróom fukk xaaman ci xat jaaha la ko dikkal xadaawu dogal mi naan ndil ilaahi bàyyi ci yàlla maanaam juróom fukki at benn ca gàddaay ga ci la génn àdduna ba muy génn àdduna am na juróom ñett fukki at ci dundam wata taarahoona maria yonentoo taarama maariya kuy maariya ummu ibrahim mooy yaayu ibrahim hmm. wa hiya moom xibtiyatu ku ñu xibt la alxasnaaw koy aji rafet si égyptien la foofu la ko takkee euh, buur boobu ngi doon tuddee mu xaw xis la yonentu bi noonu leetar di ko xool ci diine mu may ko ñaari ñaari jaam benn bi mooy maariya benn bi mu may ko benn saxdu ab saxaab ab saxaabi yoom la ko yonentu bi may hmm. mayaale ko ay xayma mayaale ko baax la mayaale ko ba médecin bu koy faj yonentu bi jël may yëpp delloo ko médecin bi ne ko ñun duñ feebar ndax nit lañ ñoo xam ne bala ñoo lekk fekk nañu xiif lool bala ñoo regg fekk ñu jub te lii ku ci nekk doo feebar kon takk na ko muy marié mu am ci doom bi ñu tuddee Ibrahim waxoon nañ démb jàngoon nañ xisaam suma rayhaan topp rayhaana wa fiiha nekk na ci rayhaana ixtilaafun ak wuutee zakaratu tudd na ko xuddamaaw yu jiitu ñu fi fi siirati ci siira hmm. te takk na soxna bu ñu tuddee rayxaana waaye ñeen nañu soxna la ñeen nañu ne du soxna dafa amoon sutura rek yonent bi daan ko yónni ay sekkereem hmm. muy dugg kër ñëw di génn waaye taxutoon mu bokk ci soxna ya hmm. waaye lu ci mun di xam su ma tam su dégg su ma tam ma topp mat na aswaajoo soxnaam ya wa saraar yi ak taara ya wa sadaqul jamii can canu képp ci ñoom saa u juróomi téeméer la di ram si ci junji ñoom ñëpp juróomi téeméer la ba mooy dana ci setti ñaar ba ba mooy maanaam ramlatu kooku moom ñeenti ñeenti téeméer lañ ko canee ak maanaam safiyatu ak kële Euh, ñoom ñaar nga juwayriya Seynabu da ko soppi tur wa sax tuddee ko Seynabu euh, ndax tur wa dafa ñaaw ñoom ñooñu seen ak ngoreel mooy seen ak can waaye bu ko mayee koo waxati rek yonent bi mi ngi ko takk ci juróomi téeméeri dinaar loolu tamit ci la maye ay doomam loolu tamit ci la Omar ibn Xattaab jëloon décision wàccee can yi bañ yegg foofa ba mu waxee loolu nag ba def ko ci minbar bi wax wax ba foo ne mocco def ko benn jigéen taxaw ne ko yow yàlla may ñu nga ñuy xeñ yàlla wax ne bu ñu joxee kenn ki ñun ihdeehu na xintaara xintaara nga xam ni mu toll ci la xomar nag wàcc mbir ba ko ne ah parce que dañu ñeel na xomar jigéen sax di ko gàggante pour xam-xam ñun dañoo ko yàq. xanaa ba ñu def ah mu ngoog dana ko seeti sax ah. ah ku dul ram la moom ak safiyatun ak safiya aydan ba tey xat ma daa woyoon na. maalikul li ñeel képp minaa ci moom xabaawu can ñoom ñu waxoon na la ko ne kële ngoreelam gala kële moom mooy eh, kiyee ko ko kiyal na najaasi yoo ko ko canal mu bunt bi mi ngi jàngale bàyyi tëxi sayduna muhammad yi ak yaay bàjjanam buñ ne bàyyi tëx mooy ki bokk ak sa baay ndey ak baay wala ñu bokk baay bàjjanti mooy noonu kii dafa nekk di góor rek kële di jigéen abu uh, abdul muttalib góor gu barke la woon ku yàlla may la dañ ko daan tuddee mut'imu tayri sama kiy lexal njanaawi asamaan yi ndax da daan def bu weeru kor jotee mu xoote ay ndab yi nele ca njubbi doji màkka ya ni nga di ca lekk ba lañ fay desar rek picc yee dañ ca daan ñëw tamit di ca lekk noonu la ko ibnu Qutayba waxee woon tuddee woon tamit noonu la ko waxee woon dégg nga yàlla mayoon la yàlla na dénkoon na ko juróomi soxna waaye ca soxnaam bu ñu tuddee fatimatu bintu amrin ibnu aïs almaxsumiyatu muy moo jurum abdullahi mi ko jural sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam amee juróomi soxna yàlla dénkoon na ko fukki doom yu góor ak ñaar waaye dénk na ko juróom benn doom yu jigéen léegi nag maam xalifa la limal ñooña bu ca bàyyee ko wax la tamit ñi ca gëm yàlla ak ñi ca gëmul yàlla moo tax man ngaa wax ne xaarisul xaaris mooy taawu seen baay mooy taawu abdul mutalib moom muy gasi samsa moom rek la xamoon su ma xamsatun topp xamsa ci ñu ndaw ña la wa zubayrun ak zubayru wa abu lahabin ak abu lahab man mooy ki nga xam ne ataawu dikkal na ko saqaawu texe hadis wa abu taalibin ak abu taalib muqawim ak muqawim min hum bokk na ca noom wa diraarun ak diraar abbas ak abbas moom ñoom ñii ma wax la xurabaawu jege ñaari lañ ci abdullahi man ngaa wax nañ ñi ñëpp ak abdullahi presque ñoo bokk ndey ak baay li ko waral mooy góor gi boroomi juróom ñoo juróomi soxna la amoon waaye aawa ba moo jur doom yu góor yëpp presque moo tax yonent bi baayam di abdullahi moo ñii ñëpp presque moom doom li lépp ki doom yi góor ya ñoo bokk ndey ak baay xijlun xijlu te doom yàlla abdu kaabata cala suma xaydaax cala waaye bi haasa ci xaydaax mi taxaala fa la wutee aaraawu xelaat yi mun si wutee daal bëkku ci xusumun xusum ca doom ya la kaana nekk na fii ci xusum xul fu nu wutee sarixoon bu leer naññi de nuqi la toxaleef na fii ci wax nu mu bàyyee ko ci ñoom asiyaawu mbir ya mm-hmm. am na ñu ne xusum ca la bokk mm-hmm. ñeen ngeen tamit ne bokkut ca tabaarakallah dégg nga de kulluhum ñoom ñëpp lam yàkkun nekkut woon xanifan di jullit mhm. bàyyi taxam yi bokk ak baayam benn baay ñenn ñi bokk ak moom ndey ak baay mhm. newuñ jullit ba tax jullit yàllaa koy tànnal ki ko neex lakin li fi nekk xamsatu xamsa wal abbas ak abbas hum ñoom xunafaaw ay jullit lañ kon mën ngaa wax ne yonent bi ay bàyyi taxam yëpp fukk ak juróom benn mhm. waaye fukk ak juróom benn yëpp ñaar rekk ñoo ci jullit am na ci nag ñoo xam ne nubuwatu ko fekkul leen fa euh, am ci ñoo lu mat presque juróom ñett ñoo xam ne nubuwatu ko fekkul leen fa hmm. am na ci ñoo xam ne nag fa la leen nubuwatu ko fekk ku mel ni xamsatu fa la ko fekk ku mel ni abu taalib fa la ko fekk ku mel ni abu lahab fa la ko fekk dégg nga de euh, ñooñ ak ak ak ñooñu mel noonu la fekk naa ak hmm. ak abbas dégg de léegi mi ngi wax leen a bàjjan yi suma arwa topp arwa safiyatun safiya bara bara atikatun ak atika aw umaymun ak umaymatu wal bayda wa bayda kullu haadihi képp ci ñi shaqaayiqu ay xarit lañ li abi ci baayam ñii ñëpp ñoom ak ñoom moom ak baayam ñu bokk ndey ak baay kon doom yi parce yëpp yaayam kii leen jur maam bu jigéen waaye watu xaasa def na setti safiyatu safiya raaw koy aji siiw safiyatu nag moom baay rek la bokk ak baayam waaye bokkuñu kii aslamat jébbalu na haadihi safiyatu mi ittifaqan ci dëppoo wa dégg nga waqul fu nu wutee xëy na arwa nekk na fa arwa jaa dikk na bi ci an baaw solo yi arwa am na werante kon gis nga am na juróom-benni bàjjan waaye juróom-benni bàjjanam yëpp kenn rek moo ci jullit muy safiyatu bu ko mooyee ñi ci des maanaam am na amuñ duñ jullit te xoole safiyatu mi ko gën a sori moom la yàlla dogal mu nekk jullit mbiram mbiram yàlla kenn xamu ko yonent bi amoon na ay nijaay ñaari nijaay la am axwaaluhu nijaayam ya moom lay wax noonu sallallahu alayhi wa sallam xaaluhu nijaayam ya aswadun aswad la wa abdu yaaxuus nasabun askan la duna a yi xis na darajaam bi jaw saaw bi dibu jaw saaw amoon na ay tànta yoo xam ne moo yaayama bokk yaay xaala taaw ñaari tàntam si la xam ci lim saa xitatun la kenn ka tudd suma taliha topp dana méngi ko furaay xatu alfarxaawu kay aji bànqaasu mooy kay aji yëkkati ko yonent bi amoon nañu ko daan liggéeyal xam ne ndeysaan ñoo toppatoo mbiram kër gi ñi di fobeere ñi di suqi na ko al axraaru gor ya wa huwa moom xarin aji xeyoo la an xaddamatu ba liggéey ko xadraaw ña dëkkee asamaan wal xabaraaw ña dëkkee suuf moom xeyoon na ñëpp liggéeyal ko anasun anas moo ci gën a siiw ibnu malik aymanun ayman ibnu ubaydi wa rabiatu ibnu kaaba ñoom ñi naa loo xamee ne ñu ngi séentu xadran daraja tan xattu na sippee ko xam ne walis ko sukkaawu jant bi ñu ñu sonnoon nañ ci liggéeyal yonent bi lañ wa bilaalun bilaal ki ñu ko daan liggéeyal la suma ibnu mas'udin man mooy ki nga xam ne kaan nekk la day fa si waa ko soccam ba wala xisaaw ak dàll ya maanaam moo doon bëkk nit mu daan téye soccam bi ak dàllam ya waa abu ci ñi ko doon liggéey la mooy ko almataaw mooy yore woon bagage ya rabaaxun rabaax ci ñi ko daan liggéey la kaana nekkoon na ba waa ban di bëkk néeg ba xëy na kaana waxtu wa nekkee ilti ilti waxtu amee ilti amul tanjamoo mooy yonentu amutoon bëkk néeg waaye léeg-léeg bis bi këram dana xat benn bis su boobaa ka daan taxaw ci bunt ba di organiser kii kii génn kooka moo doon rabaax lil bixaali moo doon yefal baax la ya uqubatu ibnu amir su ma mu ay xiibu topp mu ay xiibu ibnu abi fatima wali siri ñeel na mbóot ma wiaawu ndab ibnu yamaan yi xudayfatu ibnu yamaan yi moo doon secrétaire am moo garde moom li mu xam ci yonantu bi man mu mën ngaa taxaw na ñu bari xamuñ ko ci moom moom mosa moo tax mosa toog benn bi saxaaba yi toog mu ne leen ñi nekk naafiq yëpp ci dëkk bi xam naa leen bu ma neexee rappel leen ñi bàyyi ba dajee ba tas rek Omar gis ko ci ne ko ma gis la ñu gisee ñoom ñaar mu ne ci liste bi ñu ne ko sori nga liste bi kon di nga ñoom kenn xooluwul sa morom hmm. maanaam kenn xooluwul sa bopp aslaxun aslax ca la ca bëkk néeg ya la jundub jundub moom ca bëkk néeg ya la xoo dégg nga xunaynun eh, eh, eh, ca la ibnu mas'ud dégg wa iyaadun ca la ñoom ñëpp kuramaaw ñu tedd lañ ñëpp dañ ko daan liggéey koo teg wa hilaalun su maxmarin su ma saxdun su ma hindun wa daw dégg nga wa sinwoo mbokkam ma dégg nga asmaawu asmaawu ñi ñëpp dañ daan bëkk néeg yonantu bi lañ kon wax naa la ñu ko daan liggéeyal ci ay góor tey ma limal la jigéen ñi xalifa ne la su ma salma topp salma wa xawlatun xawlatu ummu taaha ki yaay yonantu bi xam nga nàmpaloon na ko maa dal ummi gannaaw yaayam karimatu ku tedd gaal yaay koy aji kawe su ma maymun topp maymuna ci ñu ko daan liggéeyal la bàjjanam la wa ummu iyaash xadratun dégg nga maa rusey na ak sax sax daaw koy aji texe ñëpp ci ñu ko daan liggéeyal la euh, su ma addu topp lim nañ maariyatan maariyatu xibti su ma siida topp dooleef na baax daxaa si gannaaw kii safiyatu safiyatu moom na bàcc nam la alkaraaw koy aji siiw kon ñii ñooñu nga xam ne ñoo ko daan liggéeyal ci wàllu jigéen ñi tey mu jàngal na nag mbaa yàllam ya mooy jaamam ya way mawaali mbaa yàllam ya usaamatu usaamatu cala ibnu saydin su ma saydu may baayam cala ay man cala sawbaanun cala wa ma baax na walaawu méngooga wa dégg nga wa sulaymun cala wa mud'imun suma suquraan caamam la woon bañ koy rob sax ñu moo mujjoon ca bàmmeel ba ñu mujjoon la bokk dégg nga rabaaxun rabaax moo doon bëkk néegam ba kaysaanun hum ñoom nu jabaaw ñu tedd lañ wa yasaar ca la bokk kasaa naka noonu am jësatu dégg nga de waaqidun waaqid salmaanul farisi mi nga xam ci la bokk aslama jébal na kuramaa ngi tedd ñëpp mbaa yàllaam yëpp nag ay jullit lañ ba tey su ma àddoo topp lim nañ rafaata bi ittifaaqin ci dëppoo min mawaali nabi mbokk ñu mbaa yàlla yonent bi woo loolu la wa la fudaalatu maburun wa abdullahi ñu gore lañ nag ñëpp gore la nañu wa kasaa naka noonu rafiun ca la wa karkaratu dégg nga saxdun saxdu kasaa naka noonu sindirun du mayratun jaawo dikk nañ ñu ñëpp ca mbaa yàlla yaa wa hisaamun hisaam cala kasaa naka noonu unaysatun kasaa qul waxal ne ahmaru cala ruway fexu cala wahum ñoom soxadaaw yu texe lañ wa humaamun humaamu cala abo muwoy hibu abu mu muwoy hibata cala suma abu hashimin cala xakaanis na ko damaa ñu jiituña wa abu hindin min mawali yi bokk na ci mbaa yàlla mi xidman ci li jiitu ñu ji ñu fa yëtt la fa mawaali mbaa yàllam ya saadatun sang lañ ko maam mi tedd la nekk kër yonent bi nekk fa jaam moo gën nekk sa kër baay di sang wa abu bakarata cala ubaydun cala kasaa naka noonu aflahun minhum bokk na ca muhammad cala bokk ñoom ñëpp fadalaaw ñu baax lañ suma minhum tox bokk na ca abu abu ubayda moom nag i tabkin yàlla na ko togg moo daan toggal yonent bi man mooy ki nga xam ne la day nekk na fa moom gadaahu a añam ba wala asaawu ak reer ba moo doon toppatoo reer yonent bi suma minhum bokk na ca abu lubaanata wa sax saxdu ku texe wa sax saxdu texe ngay wax xaddi man ci lu jiitu te naaloo dana xam ko sox daaw ñu texe ña texe daal ñu texe ña nga ko yàlla jagleel wagasaa naka noonu umu ay mana ci ña ko daan liggéeyal ca jigéen ña maxa umay mata da ko tafxiir suma siriinu xaysun euh, xaal yaaw koy aji kawe suma radduwaa su wa wa wa umu raafia rayxaanatu maariyatu wa salma ñi nisaaw ñoo jigéen ña man ngaa yem foofu sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ñu mu nome nga xam ne bu doon ci jamono mën ngaa wax ne ñooy postu gendarme wala ñi ñu nekk ay policier nga xam ne ku jàdd yoon ñu jëflante kook yow ci caw la ay karwaas bu nit njaaloo woon ñoo lay caw téeméeri yar ndéem sangewu su fekkee tamit da nga sangewu ñoo lay jëm ay doj ba nga dee su fekkee danga nga sàcc ñooy dagg sa loxo su fekkee tamit danga naan sàngara ñoo lay caw juróom ñetti fukki yar su fekkee danga nga xas ab gor koo xam ne ku ku fegu la ñu caw la tamit juróom ñetti fukki yar kon ñooñu ñoo doon liggéey booba nag ñoom lay wax si nii maam Khalifa Niass moo tax mu man zikru man yadribul anaqa ñii ñooñu nga xam ne ñoo daan dóor ca doq ya bayna yadayhi ci kanam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam aasimun aasim ca la bokk qabla muhammad njëkk muhammad ibnu maslamata dégg nga muhammad ibnu maslamata mi ibnu salmata ibnu xaalid al ansaari awsiyu ibnu hajar wax na ne bokk na ki ñu daan tuddee ci jaahiliya muhammad xam nga laa fa yonantu bi juddu amoon nañu tuddee woon seen doom yi Muhammad hmm. matoon nañ ñeent kii ni kenn la ca waaw Abdul Bahis dégg nga wa Ali wa Ali ibnu Abi Talib ca la bokk mooy doom bàyyi taxu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam di gorom bi tabarakallahu di mbokkam mi di xaritam bi ay jeexitalam kenn mënu ko lim dégg nga ba yonentu daana wax ne man kuntu mawlaahu fa aliyu mawlaahu allahuma waali man waalaahu wa aadi man aadaahu ne képp koo xam ne nekk naa di sa sang aliyu ibnu abi talib sa daana wax ne yow yàlla yàlla nga méngoo ku méngoo aliyu na nga xaritoo ko xaritoo aliyu waaye yow yàlla yàlla nga noonoo ku noonoo aliyu daana wax ne aliyu anta min ni bi manzilati haaruna min muusa nii Haaruna meloon ci Moussa noonu nga mel ci man waaye xayra annahu laa baax ba'di man nag li ko waral lu ci xaw a kii mooy sama gannaaw benn yonent tutut am dégg euh, yàlla defal na ko ay manaqib yoo xam ne doo ko fekk ci Aboubacar doo ko fekk ci Omar waaye tekkiwu tekk taxut nag moo leen gën déedéet añ Aboubacar gën Aboubacar gën ci xeet bi gën a am Omar waaye may nag ak ngëneel duñ benn Zubayru Zubayru ca la bokk ibnu Awaam ñii ma wax na nag us du dimaay ñooy gaynde deret ya ak darra u ñëwee way mett su ma miqdaat cala wam nu sufyaan cala xaysun cala fa bihim ci ñii taqidu lay daggee ak tilaawu der indoo fa moom waaw ñii de sa yontu ba yontu teew ñu dagg der yi di fu dund gi gaa yi nga xam ne dañoo jàng ci yoon sallallahu alayhi wa sallam ko organisé la dégg nga mu ngoog euh, euh, léegi nag yontu bi amoon na ay garde corps bu doon léegi mooy ñi nga xam ne ñoo yore wàllu sécurité bu muy dem rek ñoo koy bu bu kee ñooy war kër ga di ko garder muy war dem fenn tamit ñoo koy topp comme ni nga ko jegee ci président yi léegi bu ko yonentu def doon kenn du ko xam ci moom lañ ko sàccee kaana nekkoon na xuraasoo garde ñi xam ya Muhammad ibnu Maslamata léegi da nga gis benn waajoo xam day am ay falson yu bari day am ay ay fal Muhammad bi bokk na ci ñuy dóore waaye bokk na ci ñu daan garde yonentu dégg nga euh, xuraasuhu Muhammad saxdun saxdu cala waa abu ayuba foofu ñoom roqabaa ñu doon fuglu yonent bi nekkee këram anas cala wa ibnu shaabata cala wa abu bakrin cala abu bakar boo ko xamul man mooy ki nga xam ne in ittama roy na xalfoo ca gannaawam xonafaaw saxaba ya ndax moom rek mooy ki yonent bi julli ci gannaawam waaye mooy ki nga xamante ni bi mu feebaree moo doon jiitee jàkkaay yonent bi ba yonent bi génnee àdduna tamit moo fa wutu yonent bi taxaw taxawal xilaafa ga kon Muhammad ibnu Maslama ansaar yi kenn la ca dégg nga waxoon naa la turam du ibnu Muaaz ca la mooy ibnu Nu'maan ibnu Imrul Qaysi men sëtam Imrul Qaysi la dégg nga de mooy sangab awsu bi ba tey moo moo garde kon yonent bi keroog Badar ca mbaar ma saxdu moom tamit ca garde ñi am la mooy ki nga xam ne istasalu wa arsulaahi Euh, bi mu génnee àdduna xaras yëngatuñu ci ndeysaanam ngir baaxam nga moo taxoon benn saahir way na ko sax ne wa mastasa arsullahi min ajli halikin sami'na bihi ila li saadin abi amri mu ne xaras musta yëngatu ngir ku dee ba mooy saadu rek la moo mos a génn àdduna xaras yëngatu ci moom mooy ki nga xam ne dañ ko jamoon keroog xandax mu daan garda yonantu bi euh, dégg nga yonantu bi ne Eh, dégg nga yàlla bu yàlla yàlla bu ko yàlla rey ki nga xam ne moo koy rey daal yàlla bu yàlla seddal xolom ngoog yonantoo ñaanaloon ko loola euh, kon moom tamit nekk na koo xam ne ku baax a baax la abu ayuba xam nga ko al ansaar yu mu dalloon yonantu bi xaalid ibnu saydin al ansaar moom tamit ñi ci ñoroon garda yonantu bi sallallahu alayhi la dégg nga de hmm, moo nekk noonu inde xuddomi muhajiran wa kafa bi hada masiya mooy ki nga xam ne mooy aboubacar moom laa la wax ne fa la yonent bi abou ayub fa la yonent bi daloon maanaam këram kon loolu rek doy na kii anas ibnu malik moom moo doon mbindaanu yonent bi mu daan wax ne liggéeyal naa yonent bi fukki at musul maa wax baatam lima dégg nga ak eh, yaayam a ko teel a jox yonent bi umu sulaymin moo doon yaayam ibnu malhan ba mu ko jox yonent bi fukki at la xamoon moo moo moo gën a siiw ci ñi daan liggéeyal yonent bi hmm. amaa ibnu saada mooy muxiratu ibnu saaba Euh, ibnu Mas'ud ak Saqafiyu kenn la ki njommalekati arab yi nga xam ne ñu dàq wax lu ñuy lu xéeme ci arab di daan jommal nit ñi moom ci la bokkoon ñu daan gàdda yonent bi la bokkoon dégg nga mm, bokk na ci ñi nga xam ne tamit dañoo ñàkk seen bët ci yoonu lislaam waaw garde na ko moo doon garde yonantu bi keroog Xudaybiya taxaw maanaam ca wetu bopp yonantu ba yore ngànnaayam Aboubacar ibnu Siddiq abi Quhafa Abdullah ibnu abi Quhafa xam nga ko moom tamit ñu ko doon ibnu Amir ibnu Kaab ibnu Saad ibnu Tami ibnu Taymin ibnu murata ibnu kaab ibnu luay ibnu xaalib ibnu fihr ak qurashi yi mu nga mooy ki mooy moo doon xalifaab yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon xàndooram ca xuntuma mu moom lu ko yàlla defal moom rek lañ tudd ak xàndoo xam saxaaba yëpp saxaaba lañ ñu ci gis yonent bi gëm ko waaye moom rek la ci alquran tudd ak saxaabi yoom waaw dégg nga mooy ki wutoon yonent bi ca feebaram ba di jiite nit ñi sallallahu alayhi wasallam mu ngoog euh, loo teg wa zubayrun wa zubayrun subayru ca la bokk obaat suma bilaal suma sukkuwaan saadun saadu ca la bokk alfudalaaw ñi ñooy ñu baax ña mm-hmm. ñuy ñëpp ci ci ci ci ñi nga xam ne ñoo doon garde yonantu bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam la bokk kenn ku ci nekk nag xam histoire tuuti baax na ci subayru ibnu awaal ibnu asad ibnu xuwaylit moom mbiram jiitu woon na ki nga doon nga doon nga doon dóore ca la bokkoon man yadribul anaq ca kanam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy ki garde woon yonantu bi keroog xandax Ubaad nag ibnu Bishri an ansaari yu awsi yu moom mi ngi bokk ci bani xaarisata mooy ki nga xam ne euh, addaa lahu rasa yi moom la yonantu bi joxoon ab yar bu ko leen lii rek laal yar ba nekk ab ab ab boo xam ne day day leeral fu mu fu mu jublu mm-hmm. ba mu tuubee ci nitam ne loolu la ko joxoon mm-hmm. dégg nga de Euh, dégg nga Abdul Bari wax na jëlee ca Aïcha dégg nga mu wax ne fii bayti fa sami'a sawtun dañu toog rek dégg lu yëngatu mm. ndeke Obad moo ñëw pour gar si yonantu bi mu ne ko bayt baatu bilaal ngoog ca la bokk mooy ki nga xam ne moo jiite askanu Habsa muy Éthiopie comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam moo noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg daana wax ne yonent daana wax ne siinu bilaal indallaahi shiidun am na ñu ne xadis boobu mawduu la am na ñu ne waaye kon mu ngoog ñii ni zukkuwaan nag ko am may la ibnu abdul qaysi mooy ki gàjjaayoon ñëw ci yonent bi ñëw ci madina moo tax borom xam-xam eh, mos naa ko ci waxtaani fajar yi moom lay saxaabi yu gars yi daanañ jëmee ci moom ne ban saxaabi yu mooy koo xam ne muhaajir yu la euh, waaye tamit euh, maanaam mu maanaam dafa gàddaay euh, te fekk booba gàddaay jotagut moom dafa teel a départ bàyyi ko Màkka dem dem Madina di xaar foofa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu koy jëmee ne muhaajir yu ansaar yu la moom ansaari bi laa jëm ndax fu mu nii moom moo jiitu moo fa jiitu yonantu bi ak gaa yëpp mu mujj nekk na ku gàddaay waaye mujj na soppeeku njaateke di dal gaa ya ndax boobu dara xewagut mm. moom rek moo am loolu waaw loo teg taraka bàyyi na alxirsa garde ga is attatu ba ko dikkalee bi waxin ci wax yu lu ko dikkal xismatullaahi mu ak yàlla musal ak yàlla nekk naka ni na soxdaaw mi texañi keroog ba wallaahu yaxsimuka mina naasi wàccee keroog la nag bàyyi ne leen bu leen ma gardeeti yàlla garant na na ne moo may wattu waaw la yont bi génnee boppam bu sell ba rek ci xubba bi ne leen xee yéen nit ñi soppandiku leen ayuha ya ayuha naas in sarifu faqad asamanillah yàlla musal na ma dem leen kon nag ñi nga xam ne tamit ñoo ko daan escorté parce que ñi ñoo ko daan garde bu nekkee ci place ak yenn yi euh, wala mu nekk ci xare bi wala ñi mbaaral ko wala ñi fekk ko këram mais dafa am ñoo xam ne nag ko daan escorté mu jugaan ñi koy topp ñi féete woo ndeyjoor ñi féete woo càmpo ñi nekk ca kanam gannaaw zikru man kaana yaxdu lahu sallallahu alayhi wa sallam wa dégg nga wala woo ñal na ko abdullahi abdullahi an gisatun xat kaana nekkoon na yaxdu daan escorté daan euh, escorté yonent bi wa amirun ak amir wa baraaw baraaw ñi abdullahi an gisatu ak amir ak baraaw ñi bokkoon nañ si ñi nga xam ne bu daan yonantu bi dox ñoo ko daan escorté euh, abdoulahi moomu nag mooy abdoulahi ibnu rawaxa ibnu saxlabata ibnu ibrul qaysi al ansaar yi dégg nga de euh, alxasra ji kenn la ci umaraawul jeysi bi ci yow mu mutata ña dee woon foofa euh, ndeysaan ci drapeau bu xeex bu tàng booba ñu yonent bi cité woon te ñu ci la bokk dégg nga de abdoulahi ibnu rawaxa an gisatu nag ci mawaahib mooy jaam la woon bu ñuul nit ku ñuul la dégg nga kon mun ci ñun ñu nga xam nañ ndam mu ngoog amir mooy ibnu akwa moom tamit mm, bàyyi tax la ci salmata ibnu akwa mu ndeysaana moom tamit mu ngi shahid keroog xaybar ki la génn àdduna baraawu ibnu malik anadil ansaar yu axu anas la ibnu malik fa fil isaaba téere bu ñu neexoon baat la da daan dafa jasal yonent bi di way sallallahu alayhi wa sallam ci yéen bu yonent bi tukki da koy dend moom di ko kiyal wa iyaaka wal xawaarir dégg nga ay yax ni nisaa yonent bi daanaka wax ne ko mooy tundikul ma jong ma yi ah, dégg nga ah, tudd nañ ci ñoom lu bëree bëri bëri ci ay ay ay xibaar an jasa waaye yax du gi maanaam ñoo ko daan escorté waaye ñun escorté bi bokkut ak maanaam bu ko daan escorté bi dañ ko daan wayal ah, di ko di ko waxtaana booy ko di ko waxtu lay la buy jug dem waaye di waxtaan dégg nga di ko di ko di ko wayal dégg nga de xutabaay yi ñi nga xam ñu daan defar discours yi dafa di di jàng discours yi ci kanami mboolooy yi de wala woo ñeel na ko saabit ibnu qaysin xafibun di borom discours xat daanat demoon na bay jege xan xaddar yi wala si darajal xutabaawu borom discours ya waaye jege wuñ ko de mufti yi ne ñi nga xam ne ñoo daan ate lépp loo xam ne dañ fa nekkoon lu lënt rek ci ñoom lañ ko daan delloo ji dégg de ñoo ñoo daan ñoo daan yi wala woo ñeel na ko abdullahi salman saydun wa muaz ilayhim jëm na ci ñi ma lima la iftaaw ak fite te ne ngay wax ne dégg nga wala woo ñeel na ko iftaaw ak fite euh, abdullahi abdullahi la salman ak salman saydun ak saydun ilayhim jëm na ci ñooñu ma lima iftaaw ak fite euh, wam nu awfin xudayfatu bnu yamaan yi mi daan garde sa kanam wa abu darda dégg nga euh, ammaar ibnu yaasir kulluhum ñii ñëpp ma waxal la fuqaaw yu déggoon fiq lañ lépp lu la liir boo dajeeg ñoom rek incha allah da nga xam lu la saafara mm-hmm. wa abu moussa ashari yu mooy wa a dégg nga wa ubay mooy kaab bokkoon na ci ñi dàq alquran ba yonent bi bokkoon na ci ñett ñun si ne lu leen réer ci alquran seet leen ko ci ñooña te ubay ibnu kaab ci la bokkoon mm-hmm. wal ashari yi abu moussa ashari yu ku yéeme la woon alladi mooy ki nga xam ne xat xakkamatu xattiloo na ko xukamaa waxattekat yi fi amri seen biir fi amri seen biir mm-hmm. mooy diggante keroog muawiya ak euh, yenoon ak ak maanaam Aliyu euh, ba ñu jotee moom lañu moom la Aliyu tànnoon mu nekkoon xattekat ba ni Muawiya tànnee woon maanaam Omar ibnul Aas yi mu daan ta atte dañ koo naxoon sax mu keroog wa atiqun atiq mooy Aboubacar Ousmane suma Aliyu omruhum ak seen Omar ma ilihim jëm na ci ñële istidaaw ak gindeeku ku bëgg gindeeku boo gisee ñu mën ngaa dëpp yénun to xamoon na ay noddukat wal mu asnuna way nodd yi la doy fa moom su ma aw awsun wa man mooy koo xam ne nambatu askane ne ko saddaaw ak dégg baat ku aw su moomu ku déggoon baat la su ma aw su moomu dana noonu du footool dégg baatam su ma abdoulaye su ma saadu ñii de kullun kullun képp si ñoom roxaawu ay waxtu lañ li waqo fi taati waxtu julli ñu daan sàmm waxtu julli di ko toppatoo kon gis nga bilaal moo ci gën a siiw ibnu rabah habashiyu moom mbiram tarjumaam passé woon na bi yonent bi génne àdduna la wax na dootu noddati mooy ki njëkk ci lislaam nag mu jigi mu dem fële awsu moom tamit noonu noddukat la kon koo teg awsu moom ku neexoon baat la ibnu xajar wax na neex baatam ga ne amma warabul kaabatil mastura wa ma tala muhammadun min suura wa naxamaatu min abi mahzura la afalanna fi'latan mashhura ñooy way loolu léegi nag ñi nga xam ne ñoo doon at fee yonent bi bu fi nekkut ñi ko daan wuutu nekk ay océan naa ib kaana nekkoon na nuwaabu woo océan yam Bachir waaw woy bu ma man topp koo xam ne tas dana xeret loxo ko xas baawu jembara yi mooy ko ruusoon ma minhum topp na ci ñoom bokk na ci ñoom abu lubaana ay dan ba tey wa abu ruhumin kulluhum képp suñuy ukalaa wooy wakil lañ hmm, way sukkandiku lañ si dégg wa kasaa naka noonu way waxtu lañ ko wa kasaa naka noonu wakiil euh, saib cala ibnu masaxun aydan ba tey naibun aji kurtu laxnu ci yonantu bi wa kasaa naka nii aliya wax kawe suma abdullahi zaydun sibaaxun wa simaak numaylatun dégg nga al ah, dégg nga moom nga def de al uma naaw ñu xoolu la ñoom ñëpp suma saadun muhammad najlu masaxun doomi masoon jëtt la bokk ma dégg nga aleykum salaam dégg nga abu zarin xaddahoo lim na ko xoddamaaw ñu jiitu ña waaw bu kan ci la bokk mm-hmm. léegi nag ñu ngi bind umaraawu nga ñi nga xam ne ay umaraaw lañ dañ leen daan yónni ñu nekk ay njiit ay prince wala woo ñeel na ko ashari yu imaamu ashari yu ci la Moussa Abu Moussa ashari yu Xaalid Sufyaan wa Attaab ñi umaraaw ñoo doon buur ya prince ya waaw am ñoom la yonent bi faloon ñu nekk ñoo xam ne dañu taxaw mel ni ay ay ay ay buur bu léegi mën nañ nekk ay gouverneur wala ñu nekk euh, ay ay ministre mm. waa Abu Sufyaan Ziyaad Muaaz wa Yasidun Baasaan ñaax ma baax na walaawu méngoo ga wam noo Abdullahi najlu ubayin xëy doomi ubay Abdullahi ibnu ubay kasmi abin men turu baay wa xat saxa wéree na xanu ay wa saqaawu texeet yi mun naa féq la woon mm. bokkoon ci prince yonent bi kii woon waaye mooy kii yonent bi doon julli yàlla na ko salaatu sali ala ahadi minhum maata abadan moo tax mu ne bu ko jullee sax Omar Omar dafa ne kuy naafiq la waroo koo jullee ko su fekkee naafiq la sama jullee gi koy jullee du ko jëriñ dara bi aaya ja wàccee Omar la ànd ak ne ko a wax nga waroon def waroo ko woon a jullee wala tusalli ala ahadi minhum maata abadan dégg nga waxal liyu waxal liyu moom la yonent bi faloon mu nekk buur ilaa zawi yaman xarkaan nekkoon a yàqu di di xatte lahum ñaa leen wan ñaama baax na xa daaw xatte ba su ma walaa topp méngal na xusmaan dégg su ma wala topp tofal na xusmaan xusmaan xamrun xamar wala yum méngal na lil xaj yi ñeel xaj yi xatiq aboubacar euh, dégg nga de euh, wal bu dunu gëlëm ya ca xat googa ha un juróom la li xatiq mu ñeel aboubacar wa kaafu nuuxin ak ñaar fukki gëlëm li taaxaa mu ñeel yonantu bi mu yow moom nag kulluha léppam ihdaaw ak hadiya lil bayti ñeel kaaba mu ngoog dégg nga Aboubacar la yonent bi for euh, euh, maanaam euh, la yonent bi sampoon mu nekk commissaire affaire pèlerinage bi buñ demee ba ci yoon mu tofal Aliou buñ tofalee Aliou nag Aboubacar sax xawoon naa foog ne dafa matu ah. ba tax ñu yónni waat keneen mm-hmm. dañu yónni waat keneen muy taxaw taxawaayu ndeke nag bokkuñu ay mission ndax boobu baraa moo wàcc yonent bi nag ñu wan ko ne ko ki koy jàng ci sa deret lay bokk moo tax kii moo yore affaire yi euh, kii moo yore affaire yi kii bi léegi nag ci la waaja dem waaw aleykum salaam léegi nag waaja a dem aboubacar bi mu déparé ali ibnu abi talib topp ca euh, loolu mi ngi xew ca aja juróom-ñetteel ga ci gàddaay gi euh, léegi nag ba mu demee aboubacar moo jiite at ji waaye mbiram njàng ma aaya ba wane ne fu bi nga xam ne dana firi kóllëre ñu doxoon ni ñu fi musrikiinu yëpp gannaaw ren benn xéeféer bu mu fi xaj seeti fala taqrabu masjidal xaraami baada xaamihim haada waaw booba nag aboubacar amoon na juróomi gëléem muy muy ram suxaa dégg nga ak ñaar yoo xam ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom dégg nga su ko defee nag muy ñaar fukki gëléem yonent bi ak juróomi gëléem yi Abubakar yëpp ñu ray ko xaddiyal ko euh, euh, kaaba gi ak ak xajkat ya mm-hmm. ñu jëfandikoo ko moom lay wax si ni ne ar dafa tofal na al Mustafa kuñ tànn ka ilayhim jëm ci ñoom xujjaaj ya xalli yan xalliw xaari an muy ak jàng tawbatun suratu tawba uhum mm-hmm. ñoom kuramaaw ni tedd lañ mm-hmm. bi Abubakar demee ba ci yoon rek ci la yàlla tofal xalli ne ko ci la yonent bi tofal xalli ne ko topp ko bu demee nga taxawee mbiri nit ñi ci wàllu aj ga jàng ci nit ñi baraatun minallaahi wa rasuulihi pour mu mën maa représenté ci mbir ya mm-hmm. kon ñooñu ñooñu nga xam ne moo moo moo moom la wax si noonu nag mm-hmm. dégg nga de xamar mii nag mm-hmm. waa ibnu waa'il lañ daan dàkkantale suud dahaa yi borom njombal moo naxoon abu musa ashari yu ca xatte ba bañ jotee bañ jotee léegi nag am na ay nuqabaawu tànneef lañ ay sànq ay xawaari yi ne hmm. yi fa soxodun soxod soxod ya a na ay soxod ñett lañ Saad ibnu Rabia ibnu Omar Abi Zahr al-Xasriji ki nga xam ne dafa shahid ca xarib Uhud ak maanaam Saad ibnu euh, Xusaymata ibnu Xaaris ibnu Malik Awsi ak Saad ibnu Obada ibnu Daylam euh, mu ngoog ñii bokkoon nañ ci nga xam ne ci nuqabaaw lañ muy ñetti sax bi hmm. dégg nga soxod yi euh, koo Euh, abdoulaye abdoulaye usaylun cala asaad munfir cala kaza naka noonu kazalika naka noonu baraawu cala rafia cala xul waxal ne xobadatun cala wa abu hëy shëm sa la bokk abdoulaye xum ñii ma limal la nuqabaaw ñooy tànneef ya lu baaxoon lañ amoon na ay nujabaa nujabaawam ya teg ca ñu tedd wala ñeel na ko jaafar cala àlliyu wa sibtaahu ñaari sëtam yi xasana xuseynu atiq aboubacar wa xamsatun ñoom ñuy nu jabaat ñu tedd ña xomar jundub xosayfatun nu yamaan nii salman bilal xamaar fuddalaawu ñu baax lañ su ma miqdaarum sopp seen miqdaar na kasaa naka doon abdullahi min hum bokkoon ci ñoom waxaa kasaa naka ñu jabaaw ñu tedd ña xawaari yi nayi nag qul waxal ne talxatu cala wala xawaari yi qul waxal ne talxatu wa zubayru suma saxdu kasaa naka doon xulafaa mooy ñeenti xulafaa ya dégg nga xamsatu jaafar kazalika nag noonu ibnu awfin amir man mooy ki nga xam ne sala torox noonu loxo ñel ko ah daawu noonu ya suma Usmaan topp Usmaan nag lu masoon ke doomi ki nga xam ne xat xamoo xittiwoo na ko ixtisaawu ak ak ak ak ak ak ak tàpp min xubbilaay ngir yàlla dafa bokkoon ci ñi ne woon dañu tàpp seen bopp dañu yontu dafee ne masa waar waar wu rëy euh, bu xéemee ñoom nag ñu dajee kër Usmaan ibnu Mas'ud wax ne dootuñ lekkati yàpp dootuñ sëyati soxna yi dañuy bëccëg yëpp dañ koy xoor waaye tamit guddi yëpp dañ koy la di ko yonent bi déggee nag ne leen dégg naa li ngeen xittewoo de waaye nag maa ngi leen di xamal ne man raxiba an sunnati fa laysa minni man danaay nelaw di xeewu xam ay soxna tabaarakallaahu euh, lu ma bëgg a def ci at damay xoor damay fori kon tamit ku ma bëgg a roy roy ma ci li ma ne waaye diine ji nag duxul diine yi xëppal Ousmane ibnu Mas'ud mooy ki njëkk a génn àdduna Madinatul Munawwara moom lañ fa njëkk a suul mm-hmm. waaw ndeysaanam dañ ne Madina moom moo daloo li xarmeeli Madina ya mm-hmm. ku baax la woon ku dëdd woon àdduna la mm-hmm. ku bëggoon yàlla la amoon na ay attekat bu doon léegi mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo yore wàllu wàllu wàllu wàllu juge lépp lu jëm ci atte euh, dégg nga xam ne ay procureur lañ lépp lu ñuy war a atte bu duwut ñoom du dem Muaaz ibnu Jabal moo ci jiitu mm. wa Abu Musa Ashari wa Aliyu mm. kaana nekkoon la day minhum ca ñoom xaddaaw mm. ak xatte ci la dal xusoomi fa xuloo xuloo xamee rek ñoom ñoo daan xatte dégg nga dégg nga mu ngoog amoon na tamit fukk yum dëgaloon aljana ne fa aljana ngeen jëm ba mat fukki nit la ko mos a wax Zubayru yu cala Saadu Saïd jamian boole seen wabnu awfin wa amirun alkuramaa mi tedd ñu na ñii di xasratum fukk la aw jaba waral na jinaan xal jaan xal lépp ci ñoom ah talaxat falaxat mu ne ci ñoom la bokk kasaa nag nu xulafaaw ñeenti xulafaaw jeex nañ hmm. rabbi yow sama borom bil xasrati ci darajaay fukk yi kiraam mi tedd ña xin hmm. naa yàlla nga ñu fegal charal aadi ayu noon ya turan boole seen wu neex ma baax na waqaaw feg la hmm. kon fukk yi la yonent bi dëgaloon xal jana keroog ba mu leen dëgalee xal jana keroog lañ gën a góorgóorlu rawatina Ousmane waxoon naa ne daana naafila witar kaamil yëpp te keroog lañ ko waxoon nag aljanna nga jëm hmm? kon ñoom bu ñu leen mosaan a fal dañuy jàq waaye koo gis ñu fal ko muy sabaru hmm. di woo mbokkam yi di togg ay kii hmm. ko falee bàyyi wut xel def ki dara kaana nekkoon na saxdu saxdu li waalin di aji méngoo li suuqi màkkata euh, marché màkka bi saxdu la ko yonantu bi bàyyi woon mi mu dëgaloon aljana xam ne mooy toppatoo lañ koy jaay ndax léegi rek la ku neex nga jaay ci yi mais dañ naan contrôle marché julli ñi duñ jaay sàngara doo jël lu bon di ko jaay di ko di ko di ko di ko di ko am ci lu du bon loo ca rax moo xam soow la moo xam dugub la nga di ko jaay doo jaay cigarette yooyu yëpp ñu koy wër di ko toppatoo wali taybatul tayba marché tayba xaraa bay a gis yu xam naa marché ba na tàng ma madina ba nag ñu teg ko ci loxol xomar képp ku fa bëgg jaay loo war sa jaay ak prix yi bëgg yokk prix yi bëgg a sonal nit ñi xëy rek lu a neex jaayee xomar mooy dal ci sa kaw xam naa na foo baax na lu woon ci léppam biiram ak biteem Hmm, amiin nga xam ne xoolu woon na leen sax pour na leen ci ay soxnaam. ngir xoolu leen daal. parce nit ko wóor dafa jafe. bisimilah waaw. jàppal ne wam na awfin ibnu awf mooy abdurahman ibnu awf tuddoon na mbiram ca fukk yañ defaloon aljana wa malik malik ibnu rabiata di abu usaydin di saaidi lansaariyu la abdul bari wax na ne mooy ki mujj dee ci ahlu badar dégg nga mooy aaxiru man maata min ahli badrin amin waala ku yontu bi ko lugal ci ay soxna ña fekkee woon badar moo ci mujj dee mooy malik ibnu rabiha wa bilaal bilaal cala wa muayqibu cala xaalis yi ñii de uma naaw mooy ñu yonent bi wóolu woon ba daan nañu yónni ci ay soxnaam. amoon na tamit ay leet dégg amoon na ñu ko daan wayal soxara bu doon léegi ñoo doon journaliste yi nga xam ne ku jénnee titre ci yonent bi rek ñoo la koy delloo. yàlla mayoon leen lool ñu ko daan dàkku. wa naka noonu Abdullahi Abdullahi ibnu Rawaha Xasan ibnu Sabit Kaabu ibnu Malik. naa foofu dàkku nañu xam taaxa wala si yonantu bi hum ñoom soxoraaw ñoo doon waykat yi ñoo daan dàkku yonantu bi ku bëgg a wax ci yonantu bi lu dul loola rek <laughs> ñu dal ci sa kaw Abdullah ibn Rawah dafa doon way ndax moom sëtëb Imru Xaysi la al ansaar yi xasri ji dégg nga de mooy ki nga xam ne mm, mooy ki nga xam ne nekkoon na ci kanam yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ci umratul qadaa ba mooy umraak jubóog lañ koy firee ñu bëri dañ ciy jum ne umral qadaa umraak fay ga déedéet umra duut lu ñuy fay sunna la moo taxawoon ci kanam yonent bi di wax ne xallu banil kufaari an sabilihi al yawma nadarra bikum ala tanzilihi dégg nga darban yuzilul hama an muqilihi wa yushilul xayla an xalilihi wa yushilul xalil an xalilihi mu ne yéen xéeféer yi bàyyi leen yoonu yonantu bi mu dem li ko mooy kat dana leen sadd ay dóor yoo xam ne dana teqale seen kàngu bopp mi ak seen yaram bi dana fàtteloo xarit xaritam ba xasan ibnu sabit ibnu munsir ibnu haram al ansaari xasri ji kon ñoo bokk askan moo doon woykatu yonantu ba ndeysaan moom la yonantu bi daan wax ne ko ruuxul qudsi di jibril mi nga ànd ak yow wa fi lxabar anna ruuxul qudsi yunaafihu an xasan ibnu sabit maadaama yunaafihu an rasulillahi mu ne feeg mi ngi dàkku yonent bi di ko ayib di ñu koy bëgg a ayibal mu dal ci seen kaw di ko tagg jibril la ngi ànd ak moom kaxab nag mooy kaxab ibnu malik moom tamit tabarkàlla kenn la woon moom ibnu salmata al ansaari yu salmi yu bi fatxay dégg nga waykat la woon bu daan dàkk yonent bi dégg nga léegi nag maa ngi dugg ak yow ci ay ndaw yu yonantu bi wóolu woon jox leen ay leetar ñu koy yóbbu ca buur ya yonantu bi kenn xamut xitteem xitteem xéeme na bi mu toogee Madina ba pare ba placé dafa commencé nag bind ay leetar teg ko ci loxol ay nit ne leen yóbbu leen ma ko bii ca buuru Égypte mu Qawqis bi yóbbu leen ma ko ca Kisra bi yóbbu leen ko ca Qaysar bi yóbbu leen ko ca Nangam ba buur yëpp jeex yëpp nag wax dëgg yàlla am na ci ñu tuub ñu bari am na ci ñu tuub te rafetlu nañu leetar ba kenn rek di xiraq la bu di buuru xiraq ba moo xotti leetar ba yonent bi ñaanal ko yàlla mu ñetti nguuram ga ci la jëlee toroxtaane ba tey ci lañ jëlee torox ci la jëlee toroxtaane moom waaw fi zikri kutaabihi sa alayhi wa sallam wabnu saadin ki ki dégg nga ah, lii mooy ñu doon bind moom lañ njëkk a wax bare mooy leetar ñi ko daan bindal leetar yi ñi nga xam ne tey bu doon ci jamono ngay wax na ñooy secrétaire ya ñoom la njëkk a bind ñoom la ñoom la amul pare nag door wax nag ñi nga xam ne ñoo ñoom la daan yónnee ca leetar ya kon zikru kutaabihi kutaabuhu bind katam ya di secrétaire am ya ibnu saadin cala man na ñaar fukk ak juróom-ñett wa subayrun cala wa cala wa saadatu sang ya xulafaa ñu ko wuutu woon abubakar omar usmaan aliyu calañ ma saxru topp saxru cala mooy abi sufyaan naa ñu mu ña la ndax bi mu tuubee ca fatu màkk la dégg nga de euh, euh, dégg nga euh, loo dégg nga wa talxatu cala wabnu qaysin wa yazid cala zaydun hum ñi xutabaawu joxekatu diskir lañu woon fa muawiya wabnu xasnata amrun wa xuway tiibu xaalidaani ñaari xaalid yëpp ca lañ àllaawu àllaawu tamit ca la bokk dégg nga de ñii ñoo ñi nga xam ne dafa daan dafa la daan jox ñoo bu alquran wàccoon ñoo ko daan bind lu yonent bi soxla tamit ñooy taxaw di ko bind ndax loolu tax sax ñun ñu jot ci alquran ba ñu xamutoon bind ba bind kan xamutoon du sotti xansal xansalun xansal cala su moom nu yamaan yi xufayfatum nu yamaan yi xansal nag jar naa taxaw ko yàlla may la moo doon sangu janaba ba ci digg bi rek yonent bi xoote xare mu dagg sangu ma dem fekki ko ca xare ba yàlla dogal mu dem ci xare ba ñu bàyyi ko yonent bi ñu ngi malaaka yi mottali sangam ma mu dem teexe dem xal jana xam nga fala fala mbëgg xam Xudayfatu bnu Yamaan yi jar naa taxaw moom tamit mooy ki yonent bi déewoon ay sekkareem li mu xamaloon yonent bi bëri na koo jege te xamoo ko sax tax mos naa toog yonent bi daa peral ko liste bi naafiq yëpp mu toog ne man dañuy naafiq ci dëkk bi yëpp xam naa leen ñu dem ba wéeree xomar xoo ko ne ko mbaa bokkuma ci mën ko déete sori nga de moo ay xiibu cala fa abdoulaye neex baax na ba waaw dellu ga fa xuseynun abaan amir minhum ci ñoom la bokk xamsatu kullu yi képp ci ñi at xiyaaw ñu ragal yàlla lañ léegi nag sallallahu alayhi wa sallam ngoog ak ña ko doon bindal léegi nag dinaa la wax ñi nga xam ne ci jamonoom ñoo mokkaloon alquran boole ko mu nekk ci seen dëkk waaye ñii tey ñoo ko doon bind di secrétaire di ñaar fukk ak juróom-ñett vingt-huit alxuraan nag ñu ko mokkaloon ci jamonoom passé ku ñu fukk ak ñeent jamaa dajale woon na quraan alxuraan moo asama buñ màggal ba zaydun ñoo ko daan dajale mokkal ko def ko ci benn place waaye bu kaamil xamut de dañ ko daan bind rek ñoom tamit ci ay yax ci ay der ci ay xànc ci ay xob waaw ci jumtukaay yañ xamoon waaye doo këyit amut zaydun zaydum nu saabit wa muaz ubayu neex ma baax na walaawu méngale ga toftale ga wa abu ayuba cala tamimun cala wa usmaan usmaan cala alasi mooy ki nga xam ne asraqat jol na bi ca bataawu makka sama minhum topp bokk na ci ñoom obadatu wam nu masoodin wa man ak koo xam ne tout ma def na askane la ñu ko dardaa mooy abi dardaa rek la ma ko wax abi dardaa ti na alquran dajale ko ca la bokkoon ah, dégg nga de <coughs> dégg dégg nga loo teg wa aliyun aliyu cala a ah, qaysun cala wa salimun aydan ba tey cala bokk woo moom salim moom mawla salma mbaa yàllaab salma la jaamam loxoon fahum ñiima limal la qurra u jàngkat lañ mënoon xal quran lañ wa abu zaydin odda limeef na minhum bokk ci ñoom wa kullu wa kullun képp minhum ci ñoom xaafisun mokkaloon na xal quran waxum ñoom ñëpp tamit koramaaw ñu teddoon lañ ñooñu nga xam ne ma am xàll yu am nañu wax ne fukki saar rek la mokkaloon gan xare yaa taxoon gannaaw si gi nag la tëju bi yonent bi génnee àdduna juróom benn weer doora mokkal alquran tamimu daari ibnu awsat ibnu xaarijata ibnu sawaat ibnu xusaymata ibnu dira ibnu addi moom lañ ko askanere ibnu xajar wax na ne mooy ki njëkk a taxal làmp ci jàkkaay yonent ba yonent bi noo am na lu rëy Seydina Ousmane moom kenn du ko présenté ti ay mbiram leer na kon ñii ñooy ñi nga xam ne daal tabaarakallaahu ibnu Mas'ud moom tamit gis nga ko moo doon mindaanu yonantu bi abi abi darda moom moom mooy Uwaymir moom tamit noonu la soxnaam mooy umu darda al kubra moom tamit sahabiyatu la soxnaam ku ndaw ka nag di umu darda as-sughra kooku tabi'iyatu la mooy mooy darda di doomam dégg nga léegi tamit nag maa ngi ñëw ak yow ci nag gannaaw tudd na la secrétaire am ya daan bind muy vingt-huit tuddal la tamit ña mokkaloon alquran ja dagale ko ci ay yax ci ay xob ci jumtukaay yañ am ci jooya jamono waaye dugutoon kaamil xam nga yonentu nekk na fi ba génn àdduna kaamil alquran boo mën a dagale ne mi ngi ni amut li mu génnee àdduna nag ba Aboubacar dem di xeex ak Musaylimatul Kazaab ak mbooloo xam ne ci Yamaama ñi rey ñu bëri ci ñu mokkaloon alquran lu mat juróom benn fukki nit ñoo xam ne mm. alxuraan nekk na seen dënn mm. ci la nag léegi mm. Omar ibnu Xattaab ne ko daal alxuraan bu nekkee ci dënn nit ñi buñ ko bàyyee nii rek bu nit ñi deexee rek alxuraan dana dana dana effacé wu te kon ñu mujj ñi dañ xam problème Aboubacar ne ko naka laay defee loo xam ne yonentu mosu koo def loolu Aboubacar ko njëkk a wax mais loolu bi daa la ko fi ñu yonentu def ñu ma koo def mu ne ko dëgg la de te lu baax la te yàlla wax na nañ def lu baax la nekk ci la nekk ba Aboubacar d'accord mujj gi yàlla leeral sama xel comme ni mu leeralee xelam Omar ibnu Xataab ñu door a dem seeti nag tabaarakallaa ubayu seeti tamit maanaam Sayd euh, ibnu Saabit ak ñooñu ñoom ñoo xam ne euh, ñoom ñu formé commission lu man ñeenti nit ñoo ko jiite tabaarakallaa nag ñu commencé nag di dajale aaya bu nekk na ba lañ ko bind ak ñu wax ne fa lañ ko war def ñaari nit ñoo koy seeti ñaara koy mokkale ca noona ak wax place ba mu war a nekk yëpp ci lañ nekk dajale ko ba mu des benn aaya bëre muy laqad jaakum mu jëkk suratu tawba kenn nii rek lañ fekk moo ko man moo ko man ci nam fa wax ne fa la war a nekk muy abi xusayma ñu benn kon duñ ko bind dañ ko bind duñ ko bind bañ dem ci aboubacar aboubacar ne ah kay bind leen ko moom kenn nit la waaye yonent bi defoon na benn seede muy seede ñaari nit ndax dafa ko ko mos a jaay gëléem moom yonent bi mu fay waaje miim ne fayut ko abi xusayma ne ko fay nga ko man maa ko seede yonent bi ko def naa sa seede muy ñaari seede looloo taxoon nag léegi nag gannaaw si gi yonent bi bi bi Aboubacar génnee àdduna ñu jël kaamil ba jox ko Omar ibnu Xataab Omar génn àdduna ñu bàyyee ko Xafsatu mujj gi nag Usmaan ibnu Xafaan toog ci xilaafa gi am benn xare bu xew fële Saam mu yónni Xufayfatu ibnu Yamaan yi moom nag ba mu demee daal na mu fekkee ñooñee jàngee alquran am na wuute ak ñam bàyyi Madina mu ñëw ci Usmaan nag ne ko foog nga taxawaat ab taxawaay ci alquran dajale lépp def ko benn kaamil njàngi mi nekk benn di ko may dal yeneen yi waa tawreet ak waa lijjiil ca muy yahood yeeg nasaraan danañu dal léegi nag Ousmane formé commission Seydou moom tamit ñu ko jiite la Oubay yeeg ñooñu ñu tagale ko defaat ko bu baax a baax mu ne bu ngeen xutee ci baax rek na ngeen ko biire ci loxatu Qurayshin tax wutee woon nañ ci baatab taabuut ñu ne taawu mabsuuta la ñu ne taawu marbuuta la Ousmane neen bind nañ ko taawu mabsuuta loolu mooy luxa luxab waa Quraysh ñoom tamit ñu def seen forme góorgóorlu dajale lépp macha allahu ba lépp pare Ousmane nag léegi dajale li kaamil bu jiitu ba fi neexoon yëpp lakk ko bàyyi nag ba sam nag def ko ay mool mm. euh, xam naa copier yónnee ko bëre Misra bii mm. xiraaq ci capitalu diine yëpp mm. waaye ànd ak loolu lépp amutoon tomb nag mu jigi bi Ousmane génnee àdduna Aliou ñooñu ah, Abdou Malik ibnu Marwan gannaaw ñoom Muawiya ba mu ñëw toog nag moo formé benn waaye bu ñu tuddee Abu Aswad lan digal Abu Aswad duwali yu ñu ne Yaxya ibnu Yaamur digal ko ne ko ne ko léegi nag nañ jublu ci alquran ñu tomb ko maas ko sidda ko andi xisi bi ak saar waaye nag nekkoon na luñ xam mokkal ko noona ci làmmiñu yonantu bi waaye du xutoon luñ jëmmal yaxal ko noona mi ngi mel ni ma koy misaale mi ngi mel ni rek euh, entrepreneur bi euh, naka jekk avant muy tabax bâtiment bi bâtiment bi nekkoon na luñ tabax ci xolam ba mu xam ne nii la war a mel kon waaye nag léegi li desoon rek mooy nga jàkkaarlook moom man caa dugg ak loolu kon saar yeeg sisiib yeeg yooyu newoon na lu nekkoon ba pare ci seen xel waaye nag ñoom nag ñoo ko jëmmal noonu abo aswad addu aliyu ndax li ko araab yi ci soo amutoon tomb moo tax ba léegi nga gis boo nit di bindal saafara ñu xam secret dëgg duñ tomb alquran duñ ko maas dañ koy bind ci nam wàcc ndax amutoon loola waaye nag daanañ ko ci jàngale ndax boobu bu mu jigéen a bi jaxasoo amee yàq yi xasa xas am ci lañ indi tomb yeeg masque yi rek pour leeral moo ko indi léegi na xamoon na ay leetar yu mu daan bind buur yi moom yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam buur yëpp bind na leen leetar yonantu am hitte wala hoo aji nekk la ñeel ko maam xalifaay wax rusulun ay ndaw kiraamun ñu tedd lil mu ki jëm ci buur yi ahlu fadli ñoo xam ne borom gëneel leen wasaadatu nekk ay sang kuramaaw ñu tedd rusulun Moustapha ndawi yonantu bi ilaa kulli qawmin jëm ci nañ ci bépp nit fu ne rek nit nekk yonantu ba yónnee na fa ndawam moo dégg nañ xaw xawluwum seen wax ja xakaaw nett li na ko safaaw yonentu bi nag du yónni kuy làppatoo bu la yónnee booy wàcc ci réew ma rek yaag président ab réew ma yéen a xam xam-xam waaye du la yónni mukk nga naan yonentoo ma yónni ñu ne yonentoo ko yónni mukk boo demee rek la waajee wax rek ngay xam werante nag am na ci ndax boo génnee ca réew ma da nga ko xamaat da nga déggaat làng wala déet kon loolu day tekki ne yonentu dégg na làng yëpp ndax dañ jox nañ ma xam-xam way njëkk way mujj te loolu làng yi ci la bokk